notre chaîne El Vision Média comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk nag tey nag dama taxaw ak sama xarit sama doom lay ku xam Mounass rek xam Samba Yoro Poude donc ma bàyyi ko mu nuyu ñi nga xamante ne ni ñu ngi koy seetaan wax nga dëgg de ku xam Mounass rek xam ne Samba Yoro Poude loolu dafa leer ndax yàlla moo ñu boole man yaa may bégal waaye li ma naqari man du neex man man na bëgg yow takkay ñaar yow nangu nee naa la man nobbu ma la Samba Yoro Poude waaw te nga ne man moo tax àddina moo tax àddina moo moo jublu si yéen ndax yéen mbaraan rek mbaraan rek farantu rek ngeen fi ne yow yaa ma mos a gis ma asalaamaaleykum Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax كوسينا كاساتور اسرسد انا من الفو اي من السنغال غوخ غوخ يب انا من ما نستمخ ولا سد الناس ينترب دي وحين يعني مقوس مقوس ملي انا من كنت الناس ينترب واو ما قال لي دني لا لا دوخ بدمنا خم قال لي دفني باخون داخ بو فكي ما سد دنگ من ني ورم نتا خم من خري غور با بري ني دفني يلو لي باخون افري سرماس يوي باخون دنگ بروفوكي waaw waxal ak Sénégal ñu ngi déglu yow yaa ngi ma woo ba pare bëgg a def affaire yooyu. Samba Yoro wax ji lenn la de ñaar la. lan la. dama ne nga wax ma ndax yow yaa ma mës a gis ma baraat. yow. waaw Aliou mu ne booba léegi mën na am. jëkkër waaw fan fan. yow mën na am jëkkër booba ba léegi xoolee ñu nga mel ba sëdd ba pare mën na am jëkkër kon yaa ngi bëri yaa xam ne xale bu góor boo xam ne yaa ngi koy rëndi andi mu leen yaa ngi lekk xaalisam rek di di di fen rek. yow kay bu demee bay wax waxal ngay wax lu amul rek di nar di nar di dem rek من كيخوف اللي تبدا ما يسالك مي غراول دونك كوك قنا بقول لهم سنغال قنا بقول لهم غير جرس من رك وكان بقول يا ماك بابا نولين ما دخلين غير تاكوكو هذا بقول لهم بنكو ديغلو دي دونك كوك ماي كيغا خمانتني موي سام يوروبول كوكو خام رك خام déedéet dama ko àndaale ñëwal ñëwal wallaahi mën nga fi fekk ñëwal baax léegi Samba Yoro xam nga wax ji lan la mooy góor ñi lan moo tax takkatuñu Samba Yoro jigéen ñi mel nañ ni ñu war a mel jonga ma nañ macha allah lekk nañ ba suur naan ba maa ne toog fañu est-ce que toog nañ fañu war a toog mais xoolal sa bopp yow kay war nga mën a si pour Sénégal yëpp ñëpp war nañ mën a xool si yow loolu kay jarul wax laajte ñoom ñoom seen wari bopp sax ñu ngi lay tontu waaye wax na sama bopp man yow jigéen ñi góor ñi lu tax taxatul góor ñi tax gër boo bëggee am bu amee lu yomb du takk parce que xam nga li tax da ngay génn ak xale bu jigéen. waaw guddi ak bëccëg mu ngi si yow. bu tëggee yaay maa ngi dem sama kër bëccëg. waaw mu ngi kër xale bu góor. bu di waxee maa ngi dem seen dëgg ba dama dem seen dëgg mu jël xale mana bu góor allo na nga def. pep maanaam seeratuñu daal magi dem kër pep yaa ngi sëkk waaw maa ngi fii maa ngi soog a yeewu maa ngi ñëw léegi léegi ngay bi bu ngi bu waaw waaw xamoo papam fu mu nekk. xamul yaayam fu mu nekk. mosul ñëw seen kër. ngeen bëgg ñaari et te xam na ne yow baaxul la xale bu ànd ak yow bu góor da ngay fexe xam papam mu xam sa pap yéen ñaar ku nekk xam cos cosaanu keneen ki bu ko defee nag waajur yi ñoom bu ñu fekkee daganulul sëy bi ñoom ñooy nafeq yi maa ko wax man sa sa maa ko wax. kon daal yow Samba su ma comprendre bu baax mooy li tax góor ñi daan takk jabar tey jii buñ takkul jabar sax dañ koy am ci biti. dëgg la li ma la. benn bu fekkee yaa ngi génn xale bu góor yow xamul sa kër baay xamul sa yaay ñu mu mét xamul fooy fanaan ak fooy yënn yow xamul xale bu góor bi ndax am na papa ndax am na yaay ngeen di laqatu di génn rek di dem

li nga wax ni c'est intéressant wala mu ne dem AP moo xew Samba Yoro léegi kenn toogatul xaar ñu fekk la sa peggu ndey xaw ma nu ñu koy waxee noonu xam nga li tax est-ce que loolu moo tax tamit ma ne loolu waajur bu mel noonu man Samba ma ko wax yow ma tudd waajur waajur boo xam ne yow boobu xale boobu sa doom bu indee góor mu wax man bu biir a bëgg nga ne ko sa xëj bu ñëwata fii yow yow yow gasal sa doom pax. ñoom la de parce que parce que. waaye nag yéen bu fekkee da ngay indi koo xam ne ni ku am fële fayda. waaw waaye ngay ñëw présenté sa far sa baay ak sa ndey mu mu def jumbax aw wala cris cris. waaw xoolal rek xoolal ma wëdd. ma def tubéy bi dama ne woon xoolal tubéy bi mu def ko fii pooj muy dégg attaque jaanu mu ne la demal sa xëj loolu sa naru mel. bu fekkee loolu amul aali mu leen waajur boobu baaxul. léegi yow nag yow nag nekkate nekkoo ci tendance de t'es pas à la mode بيلي كان فرتو اي ودني يا من من مجلس والله انا من دفنك من ما جاني نقص مدني دا خمنا كوي دوخ صاحب خد مو صاحب بو داوي دافاي داوي مي ليغي بيو يو خيو مو يقاتي ييغا خمتاني وانت مصيبه مو دلن دا من دينا لا واخ دول دفنك bu fekkee xale bu jigéen mu ngi ànd xale bu góor xamul góor xamul dër bu góor bi moo xamal moom góor mu ñam lu neex lu neex waaye dafa nekk rek nga wax lu neex lu mu ña. loo fi wax day leer parce que nit ñi ñoo la toog di seetaan te dañoo bëgg muy leer Samba Yoro luy neex mooy la. bu fekkee góor bi moom dafa egg si yow. nga nekk xale xamul kenn adduna mu xamal ne adduna sa waajur xamul. waaw moom ñëwul ñaan si jabar yow keneen mu ñëw mu bëgg takk yow nga ne bëgguma kooku kii xamal man góor moom la bëgg. waaw léegi yow sa waajur bi fekkee keneen ku mu la bëgg a indil moom mu ngi yaakaar ne yow xale bu ndaw la fekk yow xam nga teenu géej nga géej teenu géej boobu yow da ngay bañ léegi nag waajur bi moom du forcé yow li waral nga bañ parce que yow nekkulatul jànq yow jéeg laa jéeg bu tànqee ndox sax jarul nga def baag. xale na may jéeg waaw jarul nga def baag dangay def si war rek nga tax boobu kay baaxul. boobu de yaa ngi si yàlla musal donc. léegi nag bu fekkee loolu am na nga topp xale bu góor bi mu ne la fen rek naan suba gannaaw suba damay dem Europe sama compte bancaire bi laay xaar damay def nii fekk fen kese loolu nag bu fekkee loolu am na. dañoo matérialiste moo tax. waaw moo tax musiba moo dal leen yow yaa ngi nii amuloo jëkkër man mooy c'est pas le de parce que. man wala c'est le cas. c'est pas def mais tamit kaay loo gis loo gis rek yaa exception parce que am nañ si ñoo xamante ne ñu ngi toog fi ñu war a toog. léegi nag bu fekkee loolu am. waaw yow sa waajur ma bëgg la may beneen góor fekk keneen moo la xamal góor. waaw da nga bañ ba dee. parce que da bañ gàcce bi mu dal sa waajur yi parce que xam nañ ne yow. kon daal tubaab di wax te divergé divergé. dévié dévirgé. yaa waaw dégg nga waaw tey dévirgé dévirgé. léegi nag loolu bu amee yow da ngay mujj nga dem jox xale bu góor bi mu umbul la pour sa waajur xam ne yow nekkuloo jigéen. loolu moo indi musiba bi léegi kenn takkatul ndax da ngeen a yomb si ngoom sax da ngay yëy ba mu sëppi nga sëñ nga jëlaat beneen si ngoom noonu ngeen mel si ñun maa ko wax may naa ko te kat démb rek la ne ma devier jeune cette personne. ah dafa ne ah ma ne suba ne leen ah man kay man man de xool kenn. man daal xam nga ban conseil laay joxe yéen xale jigéen ñi yéen laay mu xam gis nga fii ku fi ku fi dof dof lu ba joxe sa bopp bu ñu paree dañ lay toogee waxtaanee la. li tax góor ñi tey takkatuñu man dama ciy ànd ak sama góor Samba Yoro. merci. parce que bu njëkkoon pour nga xam jigéen wala nga dund benn dund bi il te faut carrément nga takk jabar mais léegi da ngay gis xale bi la dina jeex. xale bi la gën a mel ni mu war a mel. Hmm. moo la gën a mën a foo man daal man man man daal. ما قال لي استنى خير سنق بدك بو خلي يجي قريب مليون يوم يو يا يو يو دجك يو جنخل يا كو واحد يا واحد جنخل من نك دينا دينا فري في بوبو نخ يو جنخل يا يا فري على مولين دنخ دنخ يوم رقم خم لا تنغ خم جن طفل سجينا ورد تخو سويت جزبي بو تفكم قتورنا دنگاي دف مو دف افير بوب تر bu fekkee du jëm da ngay dégg bur bur bur nga xam ne kii xam ne. góor ah, ay am mag ñi xam ne loolu. ak ban ak ban. ah ak ban beneen bi si des. bu yaayam waxee benn mu ne ko fukk tecc ko daal di ragg jiw wér ah, bi. boo xamee góor loolu da lay faral loolu da ngay ak yow da ngay surmonter. dégg naa tamit sa dox rek mën nañ ko ci xam. dox waaw dox sax loolu erreur la ndax yow jànq erreur mën na am bañ a nekk jëm mën nga dawal vélo. nga daan man yooyu góob. non déglu ma wax de Aliou ma ne ma daa xam na. man yooyu góob dafa nekk bu ne bu ne ba kër. waaw demal mën nga dawal vélo yaa ngi dégg vélo nga daanu sa ndaw mu dem astafur dalin mën nga mën nga nekk footballeur nga def football. footballeur bu jigéen. bu jigéen am na. am na kay waaw am na joueuse. waaye bu fekkee da ngaa jëkk jigéen boo xam ne dafay sport rek nga takk ko te yow de góor di sport allé mu ne. Samba Yoro foofu loolu boobu beneen affaire la. foofu du ma fa d'accord ak yow parce que tey jii. jigéen buy sport te ku ko takk du sport yow ndaare rek ngay jël doo nekk champion moo may ko wax am na. bàyyi ma leen dama leen laaj médecin yi xam nañ loolu. loolu du ma ci d'accord ak yow parce que tey jii su fekkee da nga ne nekk xale daanu mu deñ am na ku mu ci neex rek nga dem def ko soo amee. waxuma leen ma samba ma wax ngeen yàq seen bopp. ah yaa ko wax de parce que. dama ne ku ko si def dina def porte plainte. man waxu eh dama si dama wax li ma wax am na waaye bu fekkee da ngeen joxe seen bopp ngeen wax da ngeen daanu si vélo ma ne ma ne di tëj. ah kay dañuy recadré waat déglu ma. recadré man mënoo maa wiiri wiiri mënoo maa jaari daal da nga may déglu. ma expliqué leen waaw sama daanu sama yoon nekku ci daanu ci ci vélo sa ndaw dañ mën na nekk donc loolu mooy xale yi foo leen ba mu neex leen soo leen amee jëkkër ngeen ko. Eh, man ma xooli boobu eh, allahu akbar bu nga waxoon. dama ne. am na xale yoo xam ne dañuy ah, dëkk kaw yi dañuy dawal vélo jàngi dawal vélo ñibbisi marché vélo dama ne ko de nga xool moto rek leen ñu dawal xale yu jigéen ñi. waaw waaye ñooñu xam nañu góor ba pare waaye am na ñoo xam ne nii seen seen dañuy rëccale rëccale am na ñoo xam ne dañ leen di tromper xale góor dafa ñëw gis nga góor bu nekkee jigéen da ngay booy dem seeti góor soo la. Euh, euh, ñeenti bay defal ne ko da ngay def couche couche tuwaat nga def euh, folotëng nga def kii sa tol si pantalon. moo gën a wóor aale mu leen moo gën a wóor ndax xale yi mën nañ la sax def dërëm. waaye Samba Yoro ñu bëri dañ leen pour drogué pour. ñu def léegi wax man mu ñëw. bokk na ak sa li nga wax noonu yëpp bu ko solee sax. terewul buñ la buñ la ko bëggee dañ la ko. waaye da ngeen a ndax bu ngeen yemee fi ngeen war a yem si yéen jigéen ñi yéen ñii nga xam ne amagu leen jëkkër moo tax di ngeen am jëkkër bay day yóbbu ji leen seen pooju ndey yi ngeen xaar góor mu ñëw bu ñëwee beneen ko sas yéen yéen waajur yu jigéen yi neex xi ngeen neex am sa doom nga ne bëgg naa si moom ay million may gu njëkk si un million cinq cent mille kër oto loolu ku ko def ku ne musiba moo lay dal da nga yàqu fii la lay jaar fii tur doo laal dara Samba Yoro nee na loolu ku ko ci def fii lañ lay jaar àll mu ne fii lañ lay jaar donc bu Samba Yoro suñu heure jeex na yaakaar naa ne waxtaan boobu nekk na waxtaan bu leen yàq bu affaire bi neex na de suñ koy waxtaan fii ba suba duñ ci pare parce que loo wax rek am na leneen lu taxaw donc conseil bi ñu ciy joxe rek mooy jigéen ñi xam seen bopp te xam ne foofu deux minutes wala trois minutes dara jaru ko ci téye sa bopp ba am sa jëkkër loolu day tax cause loolu dafay tax sax tey jii respect daf ciy am donc Samba Yoro yaakaar naa ne bii il faut ñu yëgal

la semaine prochaine jërëjëf ah, d'accord merci beaucoup merci beaucoup chers internautes on vous dit à la prochaine sur Elvision Media.